waaw asalaamaaleykum mbokk yi euh, di naxarlu bu baax baax encore une fois genn bi nga xamné président de la république genn nako ko euh, pour genn té waxul dara en tout cas li sénégalais yi di xaar ci mom pour mu wax ko li aduna bi yépp di xaar ci mom pour mu wax ko waxu ci dara donc ñun li muy concertation xaw le dialogue la ko nañ ne nous demuñu ci Nous ci table discuter comme président Boubacar Camara ligne li président de la république Nous décision conseil constitutionnel considérant 14 li mu le président doit organiser l'élection avant la fin de son mandat L'ENEN lu mu def santuñu ko dilatoire parce que tu en en le conseil constitutionnel ne pas demal nga concerté ou wala nga dialogué dialoguer nga dialogué daf simplement administration autorité compétente nous nous fixer la date Nous ne sommes pas là pour nous faire. koy donc ñuy wax ni dialogue boobu ak concertation boobu ñun duñu ci dem duñu ci yónnee loolu laa bëggoon wax duma guddal té lolu moy suñu position ah di wax nak ni amna ño xamné ñu ngi xaar aussi ñu ngi leen di interpeller pour ñu wax communauté internationale gën nañ leen gën bëgg dégg ci li nga xamné ne fi xew mais aussi amnañ ay kilifa fi ci réew mi ñu bëgg kilifa yi it génn wax ak président Macky Sall wax ak sénégalais yi dégg bu baax a li nga xam ñu koy def ah di leen président parti Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy du yàgg ci fan yu néew dina génn def déclaration wax ak sénégalais yi wax président de la république wax ak opposition pour jàppale ñu ci combat bi combat la ñu donc di woote sénégalais mobilisation bi du jeex mobilisation bi dañ koy continuer tant que amuñu luñu bëgg Motax lundi ak mardi ñu ngi xalat mom buy dialoguer ay concerté wu ñu nit dina am taxaway bo xamné dañu ko am inshallah lundi ak mardi euh, collectif bi dina leen wax ban taxaway lañ ci am euh, comme ça ñëpp gëna mobiliser wu amna aussi ay mobilisation yo xamné ne prévoir nañ ko ci week-end bi mo bëgg ñëpp mobiliser wu ba li nga xamné jàpp nañ ne jaaduwul ci réew mi élection bi ñu war a organiser à temps ñu organiser ko président le deux avril mu jël ay bagaasam ki ñu sénégalais yi wóolu falu ñu réew mi dellu ci liggéey li ma wax démb lay waxaat tey waa Sénégal sonn nañu ci politique bu dul jeex li ñu soxla mooy dellu ci liggéey réew mi dellu ci jàmm réew mi dellu ci réconciliation nañu bàyyi caaxaan yi président de la République mënul continuer di tenir le pays en haleine comme ça nit ñi dañu sonn te réew mi kenn liggéeyatu fi réew mi kenn doxatul parce que élection tey la suba la ginnaaw suba semaine prochaine la mais ba kañ bu yërëmul bopam, na yërëm waa Sénégal ñi ko xam ne dañ ko wolu, jox ko lépp pendant douze ans ñu bàyyi ko mu dérouler warul def li nga xam ne mu koy def donc ñuy japonais, ce c'est pas encore trop tard pour qu'ils se ressaisissent et nous voulons qu'ils se ressaisissent. mu bàyyi li nga xam ne la dilatoire bi amul njariñ may sant di wa rahmatullah